communiqué da cee baax waxtaan ci ak nit ñi alors am na ñoom aussi événement bu jotee dañuy ñëw ñoom ñëpp bëgg a bokk bëgg a dugg ci mbir mi ñooñu aussi dañ leen di wax ne bii baax amut géew gu set lañ bëgg mbër yi seen accompagnateur ak seen manager ak seen entraîneur point ak commission d'organisation bu CNG. loolu buñ fa jógee euh, communique nañ également ci xale yi yàq ci stade bi arène nationale bi. ñu ñaawlu ko lool lool am na benn circulaire def naa ko léegi joxe na ñu koy joxe. après ngeen jël ko. wasaare ko yéen aussi ngeen dugg ci mm-hmm. combat non violence bi mm-hmm. ngeen dugg ci combat sensibilisation bi mm-hmm. ak mobilisation bi pour que nit ñi xam ne arène nationale bi c'est un bien public d'abord mais aussi loo xam ne ñun ñoo ko doon ñaan depuis ay at lu ëpp demi siècle ba yàlla wërsëgal ñu euh, le président de la république son excellence Macky Sall defal ñu ko ñu dañ ko war a entretenir balaa sa ñëw ne xaaral ma defari ñu ñoo war a defar d'abord donc ñoo ci war a jiitu kon nag ñu ñaaxaat amateurs yi fans club yi mbër yi ñëpp ñu jàpp ci ba kenn dootu laal chaise xam nga yàgg nañu sensibiliser waaye nag ni dafa laaj aussi ñu jël ab ndogal ndogal na mooy bépp mbër bu bëri sa benn supporter sax bu yàqe benn chaise sa reliquat bi ñu koy téye defaree ko arène bi ndogal bi jël nañ ko joxe nañ circulaire bi mun nga ko wasaare mën nga ko jël également partage ko ak nit ñi la ca des mooy eh, le promoteur am lu ko war mooy mooy seet fa muy jaayee biyam naka la koy jaayee ñu seet aussi ak sécurité bi fan ba ñaata bunt la ñu ubbi yooyu yëpp ku ñëw aussi bés ba xam ne bu dara bul jaar ni xamal ne defara tax ñu wala bul jaar foofu toogeel nii nga xam ne defara tax ñu toogee ko parce que làmb ji aussi ay millions mënu cee dem ba pare léeg-léeg benn euh, waaye jóge fal rek ci la ko neex tax ba muy yàqu wala image yi euh, Sénégal yàqu no lii buñ koy def ay kilifa ñoo toog ci seen salon yi faay bu nekk dañ koy gis te dañuy oo ñeen ñu o oo Pape Abdou Fall ci biir affaire bi ñeen ñi mën la ñoo oo directement damay ak la ak la yéen du ngeen ko maîtriser. moo tax ñu wax ak ni ñi ne buñ mere kenn luñ leen wax nañ xam ne defar a tax ñu di ko def mais dara taxul làmb dañ ko war a aar dañ ko war a tegginal war ko jox ko vraiment taar bi mu mérité. parce que sport yi Sénégal tey boo leen taajoon ñi mën a am li ci benn as takkusaan xam naa Pape Abdou Fall démb la rek ne na ngeen ñëw lii am na ngeen ñëw yéen nii. bu ko paree un mois fii day fees del nest donc ñu bëri bëgg nañ ma mënuñ kaa am comme làmb am na ko nag nañ ci jàpp ñun ñëpp ñu defar ñu leen ñaax yéen aussi ngeen bokk ci sensibilisation bi pour nit ñi taxaw pour bañ a yàqati stade euh, arène nationale ku ñëw même soo gisee sax kayit buy naaw am nga droit sax nga jëm ko for dugal ci benn poubelle loolu vraiment ñaan nañ ñëpp ñu taxaw ci sensibilisation ñu téyewaat ko xam ne suñu alal la suñu yëf la moo gën ñu dem di xëccoo ci yeneen ah, stades yi ñu naan dañuy def lii dañuy def laa mais suñu arène pour bëree la macha allah donc euh, war nañoo mérité aussi li ñu jox bu ñu xalaat leneen nañ xalaat defaraat ko ba mu dellu ndam meloon vraiment Sénégal jëm kanam merci beaucoup jërë ngeen li des mooy président bëgg nañ xam tam presse bi hmm. parce que souvent dañ ci am benn jafe-jafe hmm. soo jaaree fii ñëw la du ngeen jaar fii fee ngeen di jaar fenn la presse bi war a duggee am une porte réservée à cet effet boo xam ne le promoteur dana communiquer presse fii lay jaar presse bi aussi bëgg nañu fi ñu leen wax ne fi ngeen war a jaar pour accéder fi ngeen war a toog bu ngeen ñëwee ngeen respecté à la lettre parce que aussi loolu mooy discipline hmm. organisation tant que discipline amu ca du sotti la police ñoom li ñu wax wax nañ koy pare ñoom seen stratégie ak seen lépp pare nañu daañu ñëw def ko loolu du luñ ciy communiquer ñoo ci war a ko te communiquer ci loolu dañu ñëw jëf nit gis dana am un nombre suffisant de policiers hein la sécurité vraiment sera la bien présente et visible loolu ñu xam ko muy sëpp muy police muy sapeur pompier donc loolu CNG aussi matukaayam dina ko jël dina ubbi benn salle infirmerie pour en au cas où mu am ku ñu war a évacuer premier soin ñu def ko ak suñu médecin loolu defaguñ ko woon mais bii nañ ko def parce que aussi bés bee ñu toll. jërë ngeen jëf par rapport ak sanction non même pas xam nga maa defa ne mbër mi accompagnateur yi ay amateur am ay ay supporter am pardon ay fans club lépp lu ñu def ci ndodd mbër mi la parce que mbër mee tax ñu ñëw. comme ñoo tax ñëw war na balaa moo ñëw ci open press ba wala ci réunion kër ga wax leen ne ah attention dañuy dem sport la mën naa am mën naa ñàkk mën naa niil donc nañ am yar ak teggin toogee nii. luñ fa yàq suma dodd gi lay doon donc loolu su ko communiqué xëy na ku bëgg mbër moom boo ñëwee doo yàq. waaw euh, président Bira bu waxee ba pare ñun amatuñu luñ ci teg parce que mooy suñu kilifa. parce que <clears throat> moom la kilifa yi dénk làmb. donc euh, pour rek def économie bi dañuy jëm ci benn bis boo xam ni muy Papa Sow Siteu euh, ngeen di ay collaborateurs. parce que ku ni làmb wax presse moo tax ñu convier leen quand ci rencontre bi pour jox leen conclusion yi nga xam ni ndaje bi nga xam ni moo doon réunion avec la sécurité ñu daldi leen koy defal leen euh, retour bi mm-hmm. donc loolu moo waral teewaay bi combat Papa Sow Siteu nag dañ ci jël ay matuwaay mm-hmm. matuwaay yi mooy lan bu njëkk bi comme journaliste yi laay waxal mm-hmm. journaliste yi wutal nañ leen benn place boo xam ni place oui je dis bien wii donc place bi dañu ko wut pour que d'une manière organisée ñu installer leen fa doo leen déranger kenn kenn du leen déranger avec la supervision de la police li daan am ci làmb yi nga xam ni jàll na fi muy que ni barrière bi ku nekk ñëw langaamu ci ñiy wéeru ci loolu moom xawma beneen de waaye bii moom doo leen ko ci teg bët incha allahu rabbi cela veut dire muy manager bi di entraîneur yi di borom garam bi yi ku nekk na dem yéeg ca kaw cër nag nit a koy jox boppam bala ñu laa xamal sa bopp parce que du ñu jël ay millions dépensé ko ci benn événement yàlla di ñu kattanal ba bis booba ñëw nit jóge fële naan ñu c'est telle conduite à tenir xëy na li tax nga koy wax c'est conduite boobu moo approprié pour yow mais man en tant que organisateur dama jël bis bi teg ko ci loxoy Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Khadim Ndiaye ak Yande Diop staffu PAF production day nekk en retrait ça veut pas dire que on ignore beaucoup de choses mais lépp lu ñu gis on ne manquera pas quand même d'apporter des rajustements li ci des nag moom mooy ay collaborateurs ngeen amoon na disposition yoo xam ne jëloon nañ ko bi ma leen di woo pour ñu waxtaan. mooy que ni bi ma leen bi ngeen waxee friction yi ngeen am ak police ma leen c'est parce que gàddu caméra gàddu euh, benn appareil police mënta xam yow yaay kan. ci kaw loolu laa waxoon buur ne dinaa ko offrir ay gilet alhamdulilah yàlla mi nga xam ne mooy dogal ak kattanam ak mën-mën dimbali nañu ba jox naa ko léegi cent gilet yoo xam ne bind nañ ci presse. turu seen entreprise bi nag xaw ma société euh, structure bi xaw ma ko moo tax defuma ko ci. après loolu ngeen seet ko ba nga xam ne boo leen jàkkaarloog police tête à dina xam fi ngeen bokk loolu il faut que ngeen dimbali ci te respecter police bi it. fi leen ne jaar leen fa ngeen jaar fa bu ma ci kenn woo naan ma jàppale ma ceeg waxal ma lii ak dimbali ma ci suma yoon newu ci man bu ma xasee ba dugg fii mm. CNG mooy organiser parce que nag noonu la làmb tëddee. manager yi ñi nga xam ni am nañu combat bu seen mbër bëree ba pare dañuy yéeg ils sont obligés dinañ am équipe boo xam ni loolu rek lay wër loolu rek lay toppatoo mbër mi bu bëree ba pare waat ay bagaasam dinañ ko wutal yoon boo xam ni dina dem yéeg ci kaw dem seetaan làmb ji moom manager bi cela veut dire que à part journalistes yi ñaari télévision yi nga xam ni dañuy def euh, direct bi parce que pay-per-view la muy ITV ak 2S du ñu permettre kenn mu ut fi benn camp ak euh, ITLP yi ak euh, seen affiche point com ñooñu dañuy def benn plateau donc pour xamal leen ne rek mbir la moo xam ne dañ koy teg ci charte euh, mbër yi incha allahu rabbi sécurité bi dana leen jàppale accompagner leen ñu ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm c'est valable pour aussi les amateurs dinañ leen jàppale encadré leen ñu ñëw ci jàmm pour ñi nga xam ne nag jàmm la ñuy wër si waaw sécurité bi moom ñëwul pour def dara mais nag ku jalgati boo weteek sa bopp xam nga ni da ngay jalgati ku jalgati nag dafa am lu ñu warloo ak yow donc nañ leen jàppalante làmb la dañoo bokk euh, yoon wu ñu jëm muy làmb moo leen tax moo leen yitteel ñun ñu nekk ay acteurs nañ leen def benn convergence de vue converger suñu ay effort ba atteindre suñu ay objectif loolu la ñu ni woon dinañ ko waxtaanee waxtaane nañu ko bëgg it lancer un appel li xew ci làmb ji ñaaw na gañeek ñàkk gañe yëpp di dajj ay siis loolu rafetul ñaaw na ci arène boo xam ne deux milliards la bii mooy suñu première année buñ ko fas yéene exploité pleinement parce que bañ ko ubbee rek dañoo dugg ci mbas mi kon ñun buñ ko exploité woon année lëm ba mu jeex xanaa dara dootu fi des donc dafay jaadu yéen ñi nga xam ni yéen lay yàlla dénk xarala yi ngeen di jotale ngeen jàpp ci communication bi parce que lii bis bu ñu yàlla nattoo ba décor bii jóge fi ñun nous serons mal accueillis te it su boobaa dootuñu taxawati ci benn sponsor wax ko lu ñuy lu koy convaincre mu jàppale làmb doot suñu image dootul rafetati te it gàcce danañu topp ba fu ñu jëm gàcce googu am na ñoo xam duñu recevoir gàcce jàppale leen ñu ci loolu mbër yi yéen a ngi may dégg euh, waxtaan leen ak seen fan club yi waxtaan leen ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale disposition yi ñu fiy fekk nañ ko respecté respecté sécurité bi respecté infrastructure bi respecté waa CNG respecté promoteur bi nga xam ni mu bare mu tuuti mooy dem fortaatu ay kopparam am yéene ci tant de mbër yi fi nekk nome la kooku boo ko respecté wul rek boo toogee wéetaat ak sa bopp war ngaa mën a dem tekki sa ngem loolu daal la ñu fi tënk di lancer un appel à la collaboration dans la solidarité une collaboration dans la solidarité cela veut dire une collaboration franche sincère ba bu ma gisee tey lamin wala gis Pël kenn di ko néewal doole ma mën a simi suma vest bi jël ko kon Papa Sow Siteu yéen dafa am taxawaay boo leen ci war a taxawee dafa am loo leen ci war a wane te sumay waxit xam ngeen lu tax ma wax loolu moytu leen ñu naan leen yéen ay yàq moytu leen ñu naan yéen yéen ay def lu defuut loolu ça ternit votre image et une image ternie c'est une image boo xam ni négatif loolu daal laa ci li may wax di leen baalu ak di leen baalu ak di leen jox rendez-vous incha allah di jox rendez-vous boobu wax dañ koy defar di jox rendez-vous ñi nga xam ne ñoom la ñu accrédité je pèse bien mes mots ñi ñu accrédité gilet nos gilets yi c'est pour votre protection c'est pour sauver votre image même là où je ne suis pas ou bien je serai pas là ngeen mën a affirmer wu avec cette identité pour montrer que ni vous êtes dans quelle structure mais ñi ma war a jox sumay accréditation xam nañu ma xam naa leen telle que soit la nature de l'influence telle que soit la proximité que j'aurai avec cette personne ou bien avec cette structure cotise pas njàcc pas merci beaucoup. pour euh, euh, nga ko defee ñaata service d'ordre nga euh, pour. wax dëgg rek président ngi nii. dañu ni loolu sax duñu ci sax wax loolu la sécurité gisu ñoom ils étaient même réticents pour wan leen ni ah voilà à suffisance c'est-à-dire que ñoom lu ñu bëgg mooy affaire sécurité moom buñ ci sax wax nañ leen bàyyi ñoom dañuy doxal dañuy def seen liggéey et yaakaar naa ni am na nu ñu doon demee nu ñu doon taxaw sax vraiment waruñu fi toog di poser wu question de sécurité la ci wàllu culture ndax combat bi bokk na ci combat saison bi déggoo li ma la wax de mbana la moo xam ni xorom si dina saf sàpp lu mu jar pour ku nekk boo ci duggee am loo yëg bu soobee yàlla di nga ko yëg yàlla na yàlla def jàmm. buur buur ginnaaw kàddu yi Pape bi nga xam ne mooy association. Mm. Ah. man de du ma sukk moom. non ñu man de xoolal de xoolal une minute rek waaw damay damay ñi rek mu gaaw. waaw bàyyi bu perturbé gars yi itam ñi sont mes waaw waaw waaw vite fait ñu dem ñu dem. fadal ñu woon. tàkk na tàkk na laas ba ci laana. ñu dem. waaw waaw nu mu ah ok booy TFM duñ jël gars yi nekk ci plateau bi amul gaaw guerre de la guerre. xaaral xaaral ñu bëgg a sen seen ñu jël. waaw c'est bon ñu dem. ginnaaw kàddu yi Pape Abdou Fall yëkkati. Hmm. yow ma ñëw ginnaaw Pape kàddu yi Pape Abdou Fall yëkkati waaye li jiitu loolu ma li jiitu mooy taranga ji nga xam ne moom la ñu defal ñun presse bi teg ko ci sa loxo tey yow en tant que président lan nga ci yëg xanaa kontaan rek ak di remercier d' abord le président di remercier d' abord le président Bira Sène moom mi nga xamante ne que tey moom la yàlla dogal tey mu nekk ci bopp CNG mi parce que ñun làmb jeek képp ku ci yëngu tey euh, maanaam tey ci ndigalam tey nga fi yëngoo aussi di remercier Pape Abdou Fall euh, di wax ne que dëgg dëgg dëgg jar na delloo njukkal xam nga Fadel nga nga jàpp bés bu toll ni Papa Sow def ci la nga cay def ba des lu ay fan ñu ne la mënatul a nekk ndax mas mi te sëqatul yuuxawul jooyul boole li ko neex ak li ko naqari comme un très bon citoyen donc li ko sénégalais yi mën a delloo yi njukkal mooy que bu bés baa Sénégal li yëpp mobilisé wu ñëw dagg seen i ñëw ci stade bi seetaan si def ko mobilisation boo xamante ne que du am damay wax chaque journée ñun presse en ligne bi ku ñu jàpp ñu jàpp la ñun ñëpp ci réew mi lañu dëkk euh, ba tey beddi wuñu kenn nous ne sommes en guerre avec personne il faut que muy leer tey la ñu gën a tàllal ñëpp loxo ak ku mu mën a doon ñu ñu ànd liggéey parce que lamb ji la ñu am dafa lii muy def ni su bëggee woon du ko def waxuma la dara mu yëkkati ay teranga defal ñu ko donc warluwaay la ci ñun ñu jàppale ko ndax buñ ko jàppalee jàppale lamb en tout cas au nom euh, du groupement de reporters du lutte ñu ngi lay gërëm di la ñaanal ak di la sant mooy lépp loo waxoon ak ñun ca keroog ba ñu dajee ci auto ñaar def nga ko ba mu jeex donc ci lancé boobu la ñuy woo promoteur yëpp yëpp yëpp yëpp képp ku ci am sa bés te bëgg ñu liggéey ci nañu daje toog waxtaan bu ñu waxtaanee rek solution dana am te bu solution amee ku ci nekk ci ñun yaa ci bénéficié wu ndax kenn mënatul dem sans la presse en ligne ku ko jàppit yaa ngi nax sa bopp wala kala koy wax mu ngi lay nax moo xam artiste nga moo xam mbërum làmb nga moo xam promoteur nga kenn mënu dem bàyyi la presse en ligne parce que dañuy dund beneen nouvelle ère numérique foofu la mbiru toll kon ñun nous sommes ouverts à tout le monde barewuñu kenn déclaré wuñu kenn guerre xuloo ak kenn mere ak kenn ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp waaye tàllal nañu suñu loxo képp kuy promoteur képp kuy acteur nekk ci làmb ji bu ñu mën a ànd ci benn cadre unitaire boo xamante ne que defar làmb moo ko tax a jóg. association bi nga jiite ban message nga ciy lancé pour ñu gën a ñàkk suñu bopp ba. teraanga ji ñun defal. waaw xam dëgg dëgg dëgg dayo bi. xam nga li ñu leen ñaaxee rek mooy euh, nit ki bu bu la defalee teraanga da laa sas li mu la sas kat mooy kaa ñu ànd ñun ak yéen jàpp doxal ba mu rafet. Euh, dina am nag ay réajustement ndax am na ci loo xam ne loolu sama me revient personnellement ak Pape Abdou ci lu ñuy waxtaanee loo xamante ne que day gën a ñoŋal waaye préfet bu ñu ñëwee ñu organiser wu aussi parce que bu fekkee dañu ànd ci mbooloo te mbooloo ma ñu ne dafa njiit bu ñu dajee bu njiit leen nañ leen def nangam rek nanu ko def. ndax loo ndax loolu mooy noppal maam loolu mooy noppal mais bu ñu nee ñi bu buur nee nii. nit jug sànni ko fee loxo wala ku nekk def lu neex loolu daf ñuy fragiliser te bu boobaa du ñu amal benn njariñ bu ñu ñëwee ni ñu ko bëggee ñun ñun moom ñun yor ñu nekk association bi dara nu waxtaan bu soobee yàlla ndax am nañ ci cadre bu ñu mën a waxtaanee danañu jël ay décision ba ku ci nekk boo ñëwee di nga respecté li nga waroon def fa dem merci beaucoup <laughs> orange bi waa gars yi kon jërë ngeen jëf